mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi dali na jàmm ñoo àndi xëyër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di Walf Quotidien Le Quotidien Enquête L'Observateur Les Échos Source A Libération L'As mboolem yéen yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ñu xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall jël na Doudou Ndir fi nga xam ne mooy Sénat yéen i kaay gi nee na bras de fer bi amoon diggante Doudou Ndir ak Thiénaba Lalla Fall bras de fer ba jeex na ndax ñi nga xam ne ñooy waa direction générale des élections ginnaaw bi ñu lànkee na dañu jox Ousmane Sonko ay vice parrainage avocat Ousmane Sonko yi dañoo bindoon Doudou Ndir mi nga xam moo jiite woon Sénat na ne ñooy waa direction générale des élections dañoo lànk ba ñu jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage te teguñu ko fenn Doudou Ndir ca noonee ca la jël xalimaam daal bind ñi nga xam ne ñooy waa direction générale des élections ñoom Thiendella Fall ne leen jël leen ay fiches parrainage ak clé ñoom tim taay ne mooy Doudou leen a tontu waaye tontu boobu avant muy yegg Macky Sall jëlee ko fi nga xam ne mooy Sénat loolee yi xëy duñu xibaar yéen kaay gi de l'Observateur Kër nee na ku ñuy wax Abdoulaye Sylla nekk inspecteur général d'état bu nekk retraite moo wuutu Doudou Ndir fi nga xam ne mooy ca bopp Sénat yéen kay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall génn na jaasi ji dagg na bopp ñi nga xam ne ñooy waa Sénat yéen kay gi nee na Doudou Ndir bras de fer bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak waa direction générale des élections ngir ñu jox Ousmane Sonko ay fils parrainage bras de fer boobee moo tax jamono ji li am am yéen kay gi ñu xëy fekk fa na Bocoum daan nay wax ne Macky Sall ak bi nga xam ne moom la doxalee ci lu jëm ci mbiri Doudou Ndir ñoo ngi koy ñaawloo Macky Sall dugal na ci loxoom ci lu jëm ci wàllum processus électoral bi ci anam boo xam ne anam bu doy waar la yéen gi de Les Échos xëy dañu xibaar membre yi nga xam ne ñoo nekkoon Sénat Macky Sall jëlee na leen fa yéen a kaay gi nag nee na ñi nga xam ne ñooy wax jëlee leen fa seen mandat na ba mu jeexee ak léegi toll na ci fanweeri weer maanaam lu toll si ñaari at yu fekk juróomi weer ba seen mandat jeexee ñoom Doudou ndiir ak ñi nekkoon ci biir Sénat waaye Macky Sall jëlee na leen fa yéen a kaay gi nee na dogal bi nga xam ne moom la Macky Sall jëlee daal di dàq Doudou Ndir limi niru mooy fayantoo yéen kay gi de na dàq na membre yi nga ne ñoo nekkoon Sénat ginnaaw fukki at ak ñeent ko ci bopp Sénat A xëy duñu xibaar naan ñu Doudou Ndir mi nga xam ne moo joxoon dëgg Ousmane na avocat yi Ousmane Sonko yi ginnaaw bi waa DG lanké ba ñu joxe ay fiches parrainage ñoom bindaatoon nañu waa Sénat waaye nag tontu Doudou Ndir boobee mujju ta yeeg kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan am na nag lenn loo xam ne mu ngi ñuul ci soow mi ci dàq gi nga xam ne dàq nañu ko ñi nekkoon ci Sénat ak ñu ñu fa indi am na luy ñuul ci soow mi ndax membre yees am na si ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi leen di joxar bi baaraamu ci lu jëm ci wàllum politique ndax am na ku ñu wax Cheikh Aw Balla Fall ak ku ñu wax Amadou Ndiaye ñii seen démb ci lu jëm ci wàllum politique jege woon nañu lool parti bii di APR yéen a kaay gi dalu quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall ak membre yi nga xam ne nekk Sénat ak ni mu leen fi jëlee bu ñu ko doon méngalee ak match de football mooy boo xam ne dañu koo changé ci biir match bi dem ba match bi tàng jër maanaam ñu rocci arbitre bi noonee la Macky Sall def ndax Macky Sall en plein jeu électoral ci la changé ki nga xam ne mooy arbitre bi yéen a kaay gi di enquête xibaar nan lu jëm ci Ousmane Sonko ñu dugal ko ci liste électorale yi ba léegi pënd bi wuréegul njaw ma ngi way di di xam bi na ndax tribunalu Ziguinchor ginnaaw bi ñu santaane wax ne Ousmane Sonko nañu ko dugal ci liste électorale yi ki nga def ab kalaame def ab recours ci kanamu cour suprême cour suprême googee dana yëy yàbbi ci mbir mi maanaam dana ko àtte fukki fan juróom ñaar ci weeru novembre wi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gii de l'info xëy fësal ci xëtam mu njëkk ne Amadou Ba l'enfant gâté Amadou Ba mi nga xam ne jamono ji dañu koo xàllal yoona te Amadou Ba mën naa sukkandiku ci Macky Sall ngir nag mu tànnal ko ñan lay bëreel ci làmb ji nga xam ne moom la ñu jëm ci moo nekk principal xam ne Ousmane Sonko bu bokkee ay sansam du bëri Ousmane Sonko moom mee la ñu jël tëj si kaso bi adversaire yi Amadou Ba yi nga xam ne ñoo war a wër réew mi ñooñe ñu leen di andil ay géttangaas ak i gàllankoor journal bi nee na Amadou Ba lépp jamono ji dañ ko koo tegal ci taabal ji ndax nag jël nañu tamit moyen état yëpp jox ko Amadou Ba yéene kaay gi nee na Amadou Ba nag na ko leer ne anam bi bu ci gagné élection yi ci histoire politique bu Sénégal mooy nekk président bi nga xam ne moo gën a ñaaw nu mu gagné te réew mi mbir mi du sedd si moom yomb ci moom yéene kaay gi de la ko xëy duñu xibaar naan ñu Mamadou Ibra Kane mi xam ne neewoon na dafay nekk candidat ci élection la bokk maanaam Mamadou Ibra Kane du bokk ci élection présidentielle 2024 yi génnaan na sa ba set si wecci gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu mbalit mi nar naa jaaba jonge ci ndakaaroo ndax ñi nga xam ne ñoo war a tonni mbalit mi ñoo dugg ci gerew boo xam ne gerew illimité gerew bu amutub app ndax ñi nga xam ne ñoo am seeni oto jël seeni employé di tonni mbalit mi ñooñee état état bu Sénégal da leen a amel ay milliards toll ci fukk ak bu leen loolee seenub xaalis te nag bu leen joxul seenub xaalis maanaam gerew bi dañu koy wëyal ndakaaru njaayi jël jopp bu ngeen gisee wala ngeen dégg ñu ne xet gi ma ngi leen di rey bu mu leen bett laas yéene xëy diñu xibaar naan ñu pêche artisanale bi maanaam pêche bu ndaw bi napp gu ndaw gi jamono ji ma ciy jafe-jafe journal bii di xëy di ñu xibaar naan ñu njàng mi ak njàngale mi nar naa gàllankooro ndax syndicat bii di CUSEMS ak SAEMS fas yéene nañoo dem ci grève la ko waral nee nañu dañoo déggoo woon ak état bu Sénégal ci ay accord te ba léegi état bi defu ci lenn leneen li nga xam ne moo tax waa SAEMS ak waa CUSEMS fas yéene soobu ci grève mooy jàngalekat yi nga xam ne dañu leen a ràpp ci kaso bi yéen kaay gi de l'Observateur xëy di ñuy xibaar naan ñu scandale sexuel moo am ci cité Djily Mbaye ca Ndakaaru journal bi nee na benn responsable daayira la ñu tuumaal lu jëm ci wàllum viol ñett ñi ay góor lañu ak benn jigéen yéenekaay gi de la Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Kaolack ak Cheikh Fall mi nga xam ne moom la ñu sulli woon daal di koy taal te ñu ko doon tuumaal lu jëm ci wàllum nguur jigéen journal bi nee na am na juróomi nit ñoo xam ne mandat nañu leen dépôt am na fukk ñoo xam ne ñoo ngi salle d'attente Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu ëpp na loolu am na lu toll ci fukk ak ñaar yoo xam ne mandat nañu leen déppo juróom ñi nag li ñu leen di toppee lu jëm ci wàllum bokk ci manifestation boo xam ne maanaam autorisé wuñ ko juróom ñaar ñi ñu leen di tuumaal lu jëm ci wàllum association malfaiteur wàllum violence illicite wàllum violation de domicile taal kër jàmbur criminalisé nañ dossier bi yéen kaay gi ne na quartier Ndangaan délégué ba teg nañu ko loxo maanaam arrêté nañu ko yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan nañu ko waaye nee nañu Sénégal li ñuy jëfandikoo ci xorom dafa bëri lool yéen kaay gi de Les ñu combat Modou Lo Ama Baldé suba la waaye nag bëri na ay risque soog la boo xam ne li ñu ci jël ci sécurité bëri na lool yéen kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Ndakaaru jamono ji nooyeetuñu ngir combat Modou Lo Ama yéene kaay gi du source wa ne na combat Modou Lo Ama Baldé la boo xam ne ardo dina am liggéey journal bi nee ki nga xam ne mooy Ama Baldé ab patriote la koo xam ne soppeb Ousmane Sonko la waaye tamit Modou Lo ku jege Amadou Ba la bi na ma ko tuddee mooy combat de tous les danseurs yéene kaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu arène nationale bi nga xam ne fan ñuy bëri làmb ji ñi nga xam ne ñoo dëkk ci li wër arène nationale jamono ji ko 17 mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi